ak juróom des leen ko wàll ñeent fukk yi ak juróom-ñeent xamuñu fan ko jëlee téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci way tawat yi doon ci bërëbu fajukaay yi euh, wér nañu ba fas yéene génn ñaar doomu aadama ñàkk nañ ci seen bàkkan di ngeen dégg euh, ci biir xabaar yi docteur Mamadou Ndiaye directeur bu ñu dénk lu jëm euh, ci wàllu prévention beneen ponk mbokk yi soxal ba tey mbas mi ci diwaanu sali la ñu gis rek mooy ñëngatu ci wàllum tourisme nee ñu nag bu nu moytuwulee mënees nañoo ñoo mën nañoo nërmeelu ñoom bokk na ca la tax ñu wax li ni mel mooy euh, jafe-jafe bi nga xam ne ñu ngi koy dund ak euh, way takk der yi di wàcc euh, ci lu ci mel ni restaurant yeeg bërëbu feexlukaay yi la ñu gis mooy lu ni mel bu dakkul ñoom mën nañoo dem ba tëj seeni buntu leneen itam loo xam ne dañ ko fas yéene faram fàcce muy du ay dara Diop moom nag la mu rafetlu rek mooy taxawaayu ki nga xam ne moo jiite ARTP ci coow li dox ci diggante consommateur yi ak di waa Orange moom la mu gis rek mooy kilifa gi jiite ARTP du moom euh, moo war a ñëw rek di euh, wax tarif yu bees yi maanaam daal dafa gis ne euh, lu ni mel du cëram ndax du agent marketing buy liggéey ci opérateur boobu lee tam xarit wala assurance ñu ngi koy waajal fii ci réew mi fu ci mel ni ndar nag waataay ba taxu koo am solo bokk na ca la ko waral mbas mi ak ki njeexintalam ba tax na koppar amul ci gafaga yi euh, lujum yi dem ci ñeex mi euh, fi mu ne nii mëneesu koo laal ca jaba daanaka loo wax rek ñu ne la dafa mitti ba tax na nag bu nu ko méngalee ak waxtu wii ca euh, daaw gënoon naa xumb njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall di sàkku ci waa secteur privé bi ñu jël yeneen i gë teg ko ci ak kii doomam njiitu réew bu Sénégal euh, di président Macky sàll kàddu yi mi ngi ko yëkkati euh, ci université euh, d'été bu MEDEF ba nu ko invité mu nekk sax invité d'honneur foofu ci diwaanu France leneen itam loo xam ne wax na ko moom président Sall muy bor bi nga xam ne moom la Afrique amee nga la nañ ko neenal li ci yéene kaay yeeg Aja San Gueye ngeen lu ma ñëw léegi mbokk yi ñu faram fàcce ñëw ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy euh, doore ak tiis muy ca diwaanu Bambilor euh, cité comico ñaari accident moo fa am euh, benn ba di ab camion citerne moom dak moo daal di faat ab bulañ seeloon nag mi ngi am ci RN bi maanaam route nationale numéro 10 beneen accident ba am ab mason la moom nag daal fa mu doon liggéey fa la ko courant maase ba mu ñàkk bakkanam loolu yëpp lañ ci gën a dikkaat ci suñu yeneen jataayu xibaar ak sunu correspondant yi ñu teewal ca banlieue bu mbas mi ak tolluwaay bi tey jii euh, ci euh, alxamis bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut bi ñu nekk euh, Sénégal na ñeneen ñu yokk ci ñi amoon jàngoro jii di mbas mi ci lim téeméer ak juróom-ñett lañu juróom fukk ak juróom-ñeent yi dañ leen ko wàll fukk ak juróom-ñeent yi xamuñu fuñ ko fore ca yooyu jamono itam am nañu tëddoon ci bërëbu fajukaay yi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ñoom nañu ba fa yéene génn ñaar itam ñàkk nañ seen bakkan ni ki démb ci bésub àllarba bi euh, ñeent fukk ak ñeent fi mu ne nii xaw na noo loof te jàngooro ji moo leen sonal bañ a nga sowetaas dañuy teewlu docteur Mamadou Ndiaye moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum prévention mu yore kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi nga xam ne jot nañ ko def ci laboratoire yi téeméer ak juróom-ñett ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñeent li ñu tuddee ka communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji waaye xamuñ fuñ ko jëlee ñooñu nag seen lim nii la tëddee kawlax am na ci juróom Ziguinchor am ci juróom Nord am ci ñett pikin am ci ñett Tambacounda am ci ñett Tivaouane am ci ñett Fatick am ci ñaar mbuur am ci ñaar Nioro am ci ñaar Rufisque am ñaar Jëppal am benn Fass am benn Grand Dakar am benn Kédougou benn Kër Massar am benn Kolda am benn Mariste am ci benn Mbao am benn Médina am benn Ngor am benn Wokam am benn sacré am benn Scat Urbam am ci benn Sokone am ci benn Thiès am benn Vélingara am benn Yëmbal am benn ak Yoff am ci benn téeméer ak ñaar fukk ak ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ñeent fukk ak ñett malade ñu nga ci réanimation ñaara ñàkk seen bakkan bésu démb alarba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal jot na woon ñi fukki junni ak ñett ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent kaa mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag. juróom-ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent wéer nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñeent fukk ak ñaar si lalu hôpital yi walla ci loxo docteur yi amal laata ñuy euh, euh, def màggal gu mag yi màggal ak Touba Mbacké euh, di fàttaliku rek tukki dem tukki ku tedd ki di ci Amadou Bamba Khadimu Rasul ñu ne nag ren jii dafa am ci jamono joo xam ne mbas mi dafa lëmbee jamono ba tax na ki yore kaddu xalif général des mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadre di sàkku rek ki taalibe yi ngal la def nañu docteur Santay maanaam solub masque dàndanti ko moytu dajaloo bi euh, loolu nag ñu ngi ko yëkkati foofu ca diwaanu Njaareem euh, ci CRD bi fa amoon euh, ci ni ki démb ñu wéyal xibaar yi ba tey wax itam ci mbas mi ak foofu ci diwaanu maatam ñetti weer gannaaw euh, ba nu amee seen kaa bu njëkk foofee itam euh, la ñu gis rek moo ñu yore bërëb bu fajukaay yi euh, dañu yaam yi jafe-jafe jafe yi nag aju ci jumtukaay yi nga xam ne dañu koy soxla bu nu sukkandikoo ci médecin chef bu région ba mu ne nag structure de santé maanaam bërëb bu fajukaay yooyu faw rek ñu gën leen a dooleel ngir ñu dugal seen loxo ci xeex bi dañuy dem ci diwaanu Matam ngeen baal ma fekki fa Ali Mandel yore wàllu wér yaram doon sàkku ci askan wi ñu gën a takkuwaat ngir xeex ak mbas mi organisation humanitaire bi di action contre la faim daal dinay réorienté koppar yi mu yore woon ngir liggéey ci li ñeel wàllu xeex ak coronavirus waaw comme ni nga ko waxee ñun xeex xiif moo ñu tax a jóg wante bi ñu ñëwee euh, feebar bi euh, surprendre ñu bi mu ñëwee dañ ko jël ak philosophie parce que comme ni ma la ko waxee dañuy liggéey ak waa région médical donc lépp loo xam ne yitteel na leen ñun dañuy orienté suñu appui ci loolu noonu bi mbas mi ñëwee ñoom ñu xool ne dañoo nekk ci xeex boobu noonu dañoo xool ak suñuy bailleur nan la ñu war a réorganiser ak nan la ñu war a réadapter euh, activités yu ñuy def ba ñu orienté ko dans le cadre du Covid de la Covid 19. moo tax tey jii ni ñu am approbation suñu bailleur bi pour ñu mën a def ndimbal lii nii ci région médicale. merci. jéego bu am solo mu ami lool dayoo ci xalaatu médecin chef région médicale bu Matam bi nga xamante ni li ko ci gën a rassuré sax bokk na ci ni poste de santé yi enclavé jamonoy nawet nga xam ni yenn ci jumtuwaay sax dafa commencé woon ñàkk. lu ñu ci gën a neex mooy euh, mooy ci partenaire bi nga xam ni dafa ànd ak ñun wax wàcc bi ci suuf dem ba ci poste santé yi xool saytu lu ñu soxla yéeg ak ñun pour mën def planification pour ñëw jàppale ñu tey euh, loolu tax nag moment bi mu ñëw aussi daf ñu amal njëriñ trop parce que comme ni mu la ko waxee xeex bi boobu léegi bi ñu ko sum boobu léegi euh, doole mi ngi commencé wàññeeku donc moyens yi commencé wàññeeku et bu instant bi nii aussi moment bi nga xam ne aussi ñu ngi am ay cas donc day gën a dooleel donc daf ñuy gën a neex donc njëriñ bi moom weesu nañu ko wax mais leneen lu mu si gën a neex aussi mooy euh, ñoom yemuñu rek si ñëw ne ñu lii la leen jox dañu engagé aussi ne dañuy jàppale ci livraison dem ba ci post yi fi ñu nekk joxe xam nga tey si nawet lañu nekk am na zone yu bëri nga xam ne ndox bi tey pour egg fa dafa jafe mais ñoom dañu engagé wu ba yóbbu ba foofu eggale ko jox te nit ñi aussi xam ne li ñu jabale jagleel egg na ba si ñoom. juróom-ñett at gannaaw seen liggéey ci biir Matam ngir xeex ak xiif ak malnutrition ONG française bi lee kon jamono yi taxaw na tànk ngir renforcer mboolem segment dispositif yi ñu samp ci biir diwaanu Matam ngir xeex ak mbas mi rawatina ci bépp collectivité. Ali Bandel Niang dañu des ba tey ci mbas mi tolluwaay bi ca diwaanu Sine itam nañu ne ci réew mi ba léegi ñoom am nañ ci juróom ñaar fukk ak juróom di limu doomu aadama yu ko amee euh, juróom ñett ya borom bi def na li gën ñu ñàkk seen bakkan waaye nag lanu seetlu mooy jàngoro ji di mbas mi ñëpp gën a sonal euh, mooy mag mi ba tax na foofu itam ci diwaanu siin ña nga takku ba dëgër di waxtaan ak seen mag yi nga rek ñu moytu li ni mel li nag dañ ci ànd ak ñoo xam ne euh, dañ leen di jàppale ci xeex bi ci diwaanu siin dafa toogal groupe Futurs Médias Aminata Goudia bi lay wuyoo ànd ak Abdou Karim Bey ci caméra bi yu mujj yi fii ci région bu Fatick liñ fi am ay kaawu coronavirus xaw naa bëri fi mu ne sax nee ñu lu tolloog fukki nit ak juróom-ñaar ñoom bi nga xam ne moom moo nekkee ci ne moom mooy saytu leen doole waaye nag sensibilisation bi dañ ko fas gën a dooleel ab caravane daañu ko amal ci mbeddi Fatick yi samedi bii di ñëw ngir rek gën a ñaaxaat askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi ku xam société xam taxawaayu mag ci biir seen expérience seen xam-xam ak lépp dañ koo soxla kon yaakaar naa ni ñooñu war nañ leen aar ñooñu war nañ leen taxaw am na benn campagne bu ñuy waajal sax samedi benn pour que population bi ñoom ñëpp mën a doon benn ñu mën a fàttaliku li nga xamante ni moo ñu war suñu diggante ak mag ñooñu. ci xeex li nga xam ni moom moo di jàngoro coronavirus fii ci région bi ab protocole d'accord signé nañ ko ci diggante région médicale bu Fatick ak itam agence coréenne de coopération internationale bi di COICA ñoom nag daanaka génn nañ ci xaalis ci 45 millions ngir jàppale leen ci ni nga xam ni noonu la ñu war a doxalee activité de sensibilisation yi fii ci biir région bi. nag dañoo ñëwoon région joxe ay matériel euh, support de communication ni ñuy woowee SEVAC yi maanaam ay agent communautaire ñii di liggéey ci biir gox yi maanaam comme genre bàjjenu gox yi relais yi OCB yi ak tamit euh, mën a seen liggéey ñu mën koy mandargal seen liggéey mën a am trace nit ñi mën a xam ni dëgg-dëgg ni feebar bi am na te ñu tamit xam yan méthode la ñu war a tamit xaalis euh, bu toll ci 34 million te matériel bi ma fi lim cinq toll na ci 10 euh, millions. agence coréenne de coopération internationale di COICA nag ñoom nag ci atu 2019 la ñu tàmbalee di intervenir ci région bi li nga xam ne nag moom moo di projet bi ñu fi taxawal moom moo di gën a dooleel wérgu yaram gi ci jigéen ñi ak itam ci tout tànk yi. Aminata Goudiaby ñu sant la bu ne junjoo junjoos na junjoon nañ leen ko muy ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum tourisme ci diwaanu Saly fi mu euh, guddi gu seteegut bokk na ca la ko waral euh, mbas mi ak dogal yi nga xam ne réewum Sénégal jël na ko bokk ci takk der yi nga xam ne dañuy ñëw léeg-léeg ci seen bërëb bu liggéeyukaay ba noppi itam bu minuit xase jot dañ koy tëj loolu nag tax na euh, ba ñu ne bu ñu ci jugut amaana ñoom dañu dëkkmal nërmeelu goo xam ne su amee ne musiba mbàbb kumba lay doon ndax lëggéey ba ña cay tedd di ca teral seen i mbokk ay junni junni doomu aadama lañu ñu ngi ko xamle ci seen janoo taskatu xibaar yi ci teewaayu Abdourahmane Diallo ak ma Gueye la woon. tey dañu dajale woon suñuy mbooloo pour waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe yi ñuy am ci baar restaurant yi ñuy wax ne nañu teel a tëj te ñu xam ne ñu ngi ci station balnéaire ci wàcc tefes bi ñuy bañ te ñu xam ne station balnéaire sali station soleil la ñu wax donc boo buggee jaay une destination euh, balnéaire sans géej dafay metti boo buggee nekk dans un endroit de loisir et de tourisme te ne nit ñi teel a reer te fatu dafay metti ñu looloo taxoon ñu dajale mbooloo mi pour déglu leen xam euh, seen i jafe-jafe mun a jël jafe-jafe yooyu yëpp nag yóbbu leen ci njëkk ak teraanga ak yar et en toute responsabilité vers les autorités compétentes pour ñu essayer ci ensemble trouver une solution. keroog suñu président boo Gueye ak vice président Sathiam ak yore suñu commission communication demoon nañu seeti kilifa gi bi ñu demee kilifa gi ubbi leen buntu yaatal leen vraiment dalal leen déglu leen. dig ñu dig yoo xamante ne ni aussi euh, yaakaar am nañ ci yaakaar lool dem nañu sax ba mu ne dina avant saison bi ubbi dañuy jàpp benn CRD spécial sur Saly pour naka la ñuy relancer waat le tourisme. waaw nee nañu bind yëpp donte metti na on va voir naka la ñuy def ba mu jàppale ñu ci ba pare aussi autorité policière yi aussi euh, doowal yërmande. aywa bu ñu jugee euh, Mbour dañuy euh, jàll feneen ci biir réew mi fu ci mel ne diwaanu Saalum foofu ne dañoo def ab taxaw seetlu xool euh, naka rek la ñuy def ba ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw bu ndimbal jugee ci nguur gi jëm ca ñoom ñu xam ne ñii ñoo ko yelloo direction générale bi ñu dénk lu jëm ci action sociale muy jàppal ma jàpp gi dañoo bëgg rek jafe wala boog coow yi nga xam ne day juddu bu séddale ndimbal amee ñu dàkkal ko maanaam fexe rek ba xam ne saa yu ndimbal jógee wala boog saa yu ndimbal ndimbal jibee ka mu tax a dinañ ko xam ba mu àgg ca moom te am benn jafe tàggat bi mu doon tàggat seeni ñooñ ñoo ngi ko amale ci diwaanu Saloum ci teewaayu Ibrahima Diamela ak Fally Gueye ngir rek bañu juum ci tànneef bi permettre ñi ko gën a yellool moo xam ciblage la ngir joxe ndimbal wala leneen moo tax waa direction nationale de l'action sociale di gën a tàggat renforcer capacité ndawam yi ci wàllu technique de ciblage li ñuy wax toujours rek mooy euh, depuis plus de dix ans bu fekkee ne dangay ngay cibler di travailler sur les mêmes personnes de temps en temps dina am ñu nga xam ne dinañ génn ci li ñuy wax pauvreté bi donc da leen di génnee ñeneen ñi nga xam ne tamit euh, ñu ngi door a dugg parce que am na ay choc yu nga xam ne subir nañ ko quelque que soit alpha ak choc bu mu euh, le type de choc bu nga xam ne subir na ko ñooñu tamit ay personnes yu nga xam ne war nañ leen a jàppale donc loolu moo tax ñu yaakaar ne war nañu xoolaat suñu chef de service régionaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sept régions d'intervention. méthode de ciblage nag ci wàllu boppam dafa am ay techniques yu nga xamante ni faw nga sàmmanteeg moom pour mën a jot objectif yi nga xamante ni moom moo ko tax a jóg. le ciblage dafa bëri ay façon am na ciblage bu nga xam ne géographique la am na ciblage bu nga xam ne dañuy xool profil pauvreté bi muy. nga xam ne ci communautaire bi la waa communauté yi ñoom ñooy toog tànn saytu xam ne kii vraiment ñii ñooy ñi ñu jar a jàppale am na yu nga xam ne tamit dañ koy xool par rapport ak ay euh, catégories yu ñuy jël ci âge sexe ak euh, niveau de vulnérabilité surtout. ñu génne ci formation bi la nag ñu ngi xaar ci agent direction de l'action sociale yi de seen liggéey gën a bu ko defee contestation ak réclamation yi nga xamante ne dañ koy faral di seetlu bu ciblage bu baax a baax bu fekkee Ibrahima Diame dañuy des ba tey ci diwaanu Saloum wax itam ci liggéeykat ya nekk ca mairie bu Kaolack ñoom nag fi mu ne nii li ñuy sàkku rek mais seen i payoor yoo xam ne ne ñu ay la ñeenti at euh, ba tey ngay daw ca gannaaw ne ñu nag la leen gën a mitti mooy euh, seen koppar yooyu ñu xayma ko ci juróom-ñaar ci ay millions mairie ba da koo jël euh, jëndee ko jumtukaay yi ni xeexee mbas mi seen ndaje ak taskatu xibaar yi lañu koo xam lekk yore seen kàddu Abou Ndiaye lay wuyoo nekk itam secrétaire général bu syndicat liggéeykat yi nekk foofu ca diwaan ba. li ñu li nga xamante ni ñun moo ñu naqadi mooy ay liggéeykat yu toog ñetti atu yàlla ñu war a am habillement du personnel amuñu ko ñu toog ñetti atu yàlla ñu war ñoo jox saaboog meew pour les ouvriers les manœuvres joxuñu ko ñu toog depuis 2016 ñu war a avance avancé nañu mais xaalis bi ñu ko fay te ñëpp xam ne ni dans le droit du travail. bu fekkee da am revendication nga di ko xeex pendant cinq ans fayuñu la ko bu cinq ans yi passé donc kooku mënatu la ko réclamer ñëpp xam nañu 2016 ak léegi cinq ans yi 2021 la. dama leen di laaj ndax loolu jaadu na wala jaaduwul dama leen di laaj ndax loolu man en tant que responsable syndical war naa mën a toog di seetaan ay travailleurs di nekk di traverser ay jafe-jafe yi te mënuñ cee taxaw ànd euh, ci saafara li gën a garaaw mooy. avancement 2016 chaque année ñu ñu prévoir ko ci budget bi dégg naa tey ci suba li ñuy wax gars yi mooy 7 millions la woon voilà jëndee nañ ko masque ak ay gel mais loolu waxam jotagul nañu bàyyi ba suba ak jàmm devant l'inspecteur du travail ba ñu wax ko foofu dootuñu ko doole ci li seen li des seen ngirub parce que loolu détournement d'objectif la détournement d'objectif la ñu def fii ay sitting ci diggu mairie bi daañu déposer un préavis de grève bu ñu jógee Saloum dañuy dellu si fii ci Ndakaaru wax itam ci leneen muy jafe-jafe yi assainissement ci Parcelles jàpp leen unité 1 11 askan wa nee ñu la ñuy dund bokk na ca ndoxum taw ma jaxasoo ak ndox moo xam ne baaxul moo xam ci foos la génne wala feneen ñoom daal tara na leen a dund ca seen tegi bakkan kañ ca joxoñ baaraamu tuuma nee ñu du kenn kudut maire ba moom Moussa Sy ndax fullaa lut seen ab xeex du samay kàddu askanu parcelle Assainies unité 1 11 ñoo ko xamle Aminata Mbaare Sow lañ ci ab yoon la bu nekk ci unité 11 bu Parcelles Assainies file ndox mi di fi guus ndox la nag ndoxu taw boo xam ne dafa mélangé wu ak ndox mi génn ci foos yi loolee andi jafe-jafe ci ñi dëkkee ci wet woowule. lii moom yàgg na fi mosu fee dañ chaque nawet nii la trois mois yëpp nii la ñu dëkkee mënuñu génn suba guddi ngoon xale yi fii la ñuy fooyee moom bu dul dara fii la ñuy fooyee chaque jour xale yaa ngi fi di paccax paccaxee. surtout ñoo gonnal. suñ xale yi aussi lii day joxe feebar mag surtout xale. bu weesoo xet mu bon moomule jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram tamit mën na caa jóge surtout nag ay xale dañ ciy faral di fo. lii mun naa indi sax lu raw corona. boo koy noyyi ku ne fii la lay jàpp ci put fii waaw meew munu ci dara dañoo sonn ci lii. parce que feer feebar baa ngi nii corona rëmbee nit ñi kon nag lii bu ci dollee ko dafay gën a métti ci ñun. ñoom ñuy joxoñ baaraamu tuuma mairie bu la si ni war nañoo yërëm nit ñi ñu defar lii bu duwut mag ñi sax nekk xale yi. ñu jàpp ne defaguñu dara ngir ndox mu bon moomu lee mën fa jóge te ñu jàpp ne loole du guléet at mu ne bu nawet bi teewee nii la seen gox ki di aywa Aminata Mbaye Sow ñu wax ci ñeneen ñu mer ba futt mooy liggéeykat yi nekk euh, wala boog ñenn ci liggéeykat yu hydraulique maanaam lu jëm ci wàllum ndox mi euh, fii ci Sénégal nee ñu nag ñoom euh, daanaka jege nañu juróom fukk ak juróom bu nu ko ëppale at a ngi nii ñu topp ci gannaaw nguur gi di daw ngir rek ñu daal di leen utal ay kayit ñoom liggéeykat yooyu ñu ne nag lu ëpp ca forage yi fii ci Sénégal maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk ci ab liggéey ñoo koy def ko yore seen kàddu di Babacar lii mooy secrétaire secrétaire euh, général bu Sénap collectif kàddu yi ñu ngi ko yëkkatee ci diwaanu Njàmbur ca teewaayu Thierno Fall ma toogal télévision Futur Média ca Louga la. On peut pas concevoir des travailleurs bénévoles qui sont qui sont là depuis ans ans trente ans sans contrat ça c'est inadmissible. Et pourtant, 80% du travail se fait par les bénévoles. Sans les bénévoles, les forages ne fonctionneront jamais. Et les bénévoles qui interviennent dans les forages sont deux à trois fois plus nombreux que les agents de l'hydraulique. jëgalu bu baax ci élément bi mu mel ne bu français bi la waaye yaakaar naa ni jàpp jàpp ngeen kàddu yi ci gën a fës rek mooy lanu ñaawlu mooy ñoom nee ñu euh, liggéey bu ëpp ci forage yi fii ci Sénégal maanaam la ëpp ci liggéey ba ñoom euh, ñoo koy gàddu ci seen ndodd ba noppi itam amulu ay kayit yu wóor mer ba futt moo tax itam ñu def seen ab ndaje ci diwaanu Louga euh, diwoo woo kilifa yi ñu àddu ci li ni mel beneen coow bu fi juddu diggante orange la ak ak opérateur yi Mamadou Aydara Diop moom nag rafetlu benn yoon doon taxawaayu eh, ki jiite ARTP bu ñu sukkandikoo ci moom ne kilifa ARTP bi eh, dafa jàpp rek ne ab agent marketing bu orange la eh, ba tax na mu yëkkati kàddu di wax nag njëgug seen tarif yu bees yooyu lee moom mi président d'honneur bu kuréelu ko liggéeykat yu Sonatel dafa jàpp rek itam ne Y'en a kàddu yooyu ñu yëkkati woon di woo askan wi ñu boycotté maanaam gedd mbiri orange yooyu mu ne gisut ni daal warees na ko mën a def ñu teewlu ko Bako mu nekkoon ganuk info du matin ci télévision Futur Média Chérif Dia ak Youssou Baro ñoo taataan ay kàddoom. Sonatel si wàllu droit code des télécoms Sonatel am na sañ-sañu def li mu def ARTP man ko koo bañal maintenant li la droit may droit may na la ko mais bu coow li jógee nit ñi wax euh, jaadu na ARTP dugg si mais bu mu si duggee amul pouvoir jox injonction Sonatel ne par force da ngay dindi lii parce que code téléphone mayu ko. te man sax dama jàpp ne bon ARTP manoon naa waxtaan ak Sonatel mais ARTP amul benn yoon di nañ ma baal waa ARTP nekk agent marketingu Sonatel parce que ay offre Sonatel Sonatel boo ko war a publier moo ko war a argumenté mais bu ñu demee ba ARTP dem woote conférence de presse di di di publicité ay offre Sonatel dafa génn si si si li nga xam ne mooy cëram. waaw Y'en a marre moom samay xarit la ñu liggéey na ñoom en deux mille dix deux mille onze xam naa Fadel bu baax xam naa ñoom Simon xamante nañu liggéey nañ liggéey bu mucc ayib en mille 2011 mais am nañ sañ-sañu woote booy kot mais kii déterminé mooy client bi te man jàpp naa ne client bi lii ko Sonatel di offrir ak yeneen opérateurs yi moom mooy arbitré euh, maa moom sama poche maa moom sama njëkk fa mu neexee te baax si man falaay dem donc loolu waxu consommateur la yaanaa maar mën naa wax lu ko neex waaye ko mënula jël consommateur tamxarit ñu koy waajal euh, fii ci Sénégal ci diwaanu Ndar Géej moom la gis rek mooy waajtaay ba taxu ko am solo seen Diop moo doxantu euh, ca jaba la mu gis rek mooy njëgu lujum yi ni soxla ngir defar cere ji euh, dafa xaw a seer lool ba tax na nee ñu li ci gafaka gi daanaka mëne su koo def ci jab yi loolu nag li ko waral xam ngeen ko muy mbas mi ak tolluwaay bi nee ñu bu jamono mësaana neex ci waxtu wi waajtaay yi day takkarnaase fi mu ne nii nag dañoo gis ne mbir mi askan wi dañ cee xale yi dañuy dem ca ndax géej fekki fa Ousseynou Diop ak Habib Seck. fan dong des ci wàllu tamxarit bi marché bi jamono jile da daan kumb waaye ren jile loolee nemmeekuwun ko jaaykat yi nag ci seen i gis-gis gisuñu ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw jënd ndugg yi nga xamante ni moom la ñu war a booleek lii di tamxarit bi. mais nag affaire bi wuute na bu baax bagage yi seer na njaay mi dara doxagul ñoo ngi nii toog tuwaar fa kàlla doxul barki démb doxul démb tey nag yàlla xam ndax tey moom Ndiémé Diop jaaykat la nee na moom ñi nga xamante ñooy jigéen yi ñu ngi ñëw ci marché bi waaye nag ñu ci bari ci ñoom koppar yi ñu xamante ni moom lañu ñu waroon jëndee loolee amuñu ko tax jafe-jafe am ci wàllu njaay mi. waaw ñi ngi koy préparé préparation bu neex waaye ndugg yi cher na torop torop ndax loo yëkkati rek dana naan dafa cher ñi koy jënd dangay ngay wax wax wax ba sa dënn daanu. mbasum coronavirus bi nag am na loo xamante ni indi na ko ci wàllu ndugg bi nga xamante ni moom la ñu waroon ndugg ci wàllum tamxarit bi ñaaña njaay moom la mu gis mooy jafe-jafe bu mag la am njàqare itam ginnaaw ba mu ñëwee doon ndugg jëm ci wàllu tamxarit bi. gaar moom dafa cher trop ndugg bi cher na trop. waaw daaw moom moo dàqoon sa tamxarit wante moom ren moom macha allah ndugg ren moom tamxarit bi dafa metti ndax ndugg bi dafa cher. Yaram Fall nekk ci marché Tine Jigéen moom nee na ay at a ngi muy jaay ci marché bi waaye li mu gis leen jile mësu ko gis. bi ñu ngi koy waajal comme ni ñu ko daan waajale mais pour le moment moom gisuñu kenn gisuñu kenn gisuñu kenn ndax euh, feebar bi dafa daf si joué bu baax a baax a baax a baax te jur gi jafe na yàpp bi seer na waaye gisu gisuñu benn client wax dëgg yàlla. xarit bi ak waajal bi metti na lool ñu ci bari la jàpp ni coronavirus bi moo ko waral ndugg mi cher ndaw li itam naka noonu. Ousseynou Diop ñu sant bu baax gërëm la des ba tey ci xibaaru diggu ba gi wax tam ci leneen fitna gu nu nemmeeku ay bés yi nu génn taxawaay yoo xam ne léeg-léeg sax bakkan tey rat moo xam ci kër yi wala ci mbedd mi television Futurs Médias def taxaw seetlu laaj ana lan moo ko waral lu ci maanaam ci diwaanu Pikine moom ñenn ñi yor kaaraange gi wala boog ñiy wattu kaaraange askan wi ne ñu nelaw ba yandoor jafe na leen ñi ngi sàkku rek ci uh, yenn ci wayjur yi ci kër gi yooyu itam ñenn ci ñoom am nañu njàqare ci ëllëgu seeni doom dañ ciy ànd ak Abi Faye ak ñoo ñu defal gëstu bi ca diwaanu Pikine lim gi na mu yokkee du loo xamante nit des nañ koy faral di gis fii ci mim réew ñaar ci ay ndaw ñàkk nañ ci seeni bakkan lii li ëlëb na lool xeluk ñi di parents d'élèves yi doore ko itam ci président APE bu école El Hadj Elimane fare fii ci diwaanu pikin moom bés gu jot la nga xamante nit moom lay njëkk a nekk ci xelam rek moo di ñàkk kaaraange googee. man dama yaakaar ne parents yi si wàll boppam dañu am loo xam ne dañ ko bàyyeeku par rapport ak nañ daan gérer xale yi quoi. manque de surveillance dong la xale am na age boo xam ne bu fa tolloo da nga ko war a gérer. da nga ko war a gérer à base xale bi am sept ans ah sept ans nee nañu xale bi da nga ko war a euh, da nga ko war a neexal ba sept ans. Ndiasse Gueye lay wuyoo mu ne jël na mbir mi ak loxoom gannaaw ba nga xamante ni douanier bi def na jëf ji doomam ji. am na loo xam ne vraiment en tant que de famille am na noo xam ne boo koy interpréter say wax man vraiment dootuma la jox benn fullo quoi. mu ne faaw rek ñu dellu siwaat ci suñu xel te it jël problème bi def ko suñu mbiruk bopp. am na noo xam ne dama ko condamner population bi il faut que ñu jéem a xool nan la ñu mën a def pour sécuriser les enfants c'est-à-dire de l'enfant de chez lui à l'école de l'école à la maison il faut que ñu am de kii sécuritaires yoo xam ne mooy mën a permettre enfant bi pour ñu xam ne heure bii lay wàcc ñu dem jëli ko heure bi lay jàng ñu indiko ko. njàkkare ba léegi mu ngi ci xel yooyu rawatina itam. ci waajuru ndongo yi moom mu leen di ñaan rek ñu am déggoo gu ñuy am seen diggante ak seen njaboot yi. dañu war a nekk complice sa doom sa jabar dañu war a nekk sa xarit à chaque fois que problème am na war nga mën a toog ñoom waxtaan ak ñoom. jafe na ngir nga am jamono joo xamante ni parents ak élèves des nañuy waxtaan loolee lépp lu ko waral moo di moytonte gi ndax kàddu yi ñagas yay faral di am di waxi Ndiassé Guèye ci loolu itam mu ne faaw rek ndaw mi ñu teel ko yar ca ba muy tooy. fay euh, ñu sant la bu baax gërëm la wax itam ci leneen muy njiitu réew bu Sénégal moom président Macky Sall di sàkku rek ci secteur privé bi euh, ngal la ñu jël yeneen i gët teg ko ci euh, Afrique ak i doomam moom njiitu réew bu Sénégal itam xam ngeen ni kàddu yi mu ngi ko yëkkati ci université d'été bu may def ci diwaanu France foofee lanu ko fa def sax ab invité d'honneur moom njiitu réew bu Sénégal itam ba mu jëlee kàddu mi ngi dellu siwaat rek ci ngal la bor bi nga xam ne Afrique am na ko ñu neenal ko ñu teewlu son d'excellence. Il y a une Afrique qui des stéréotypes qui la présentent. li ñenn ñi foog du moom moo nekk Afrique mi ngi yokkute jëm ci kanam ci wàllu émergence kon investir fii ci Afrique du risque gëneel la ba tax na kon message bi nga xamante ni moom laa leen di yeggee yéen investisseurs yi mooy ngeen am beneen xar xanam bu yees ci Afrique xam ni moom mooy ëllëgu àdduna bi. suñ continent bi nag jéego yi mi dox jëm ca kanam jéego yu am a am solo la. te ñëpp ñoo xamante ni kon gis nañ leneen lu safaan wa ëllëg daañu am mbetteel rendez-vous boobu nag jarul saxaar ëllëg mën nañ ne tey jii la ngir nag koom-koomu àdduna boobu mën a jëm ci kanam Afrique daf ci am pàcc bu am solo ci wàllu construction koom-koomu àdduna boobu rawatina ay opportunité ci wàllu investissement boo leen xoolee boru Afrique 2 pour cent la ci dette mondiale bi di euh, bor bi muy 365 milliards de dollars kon croissance su Afrique am na régularité ba tax na kon sunu yéene rek mooy fexe ñu daal di neenal boobee bor nga xamante ni Afrique am na ko. J'ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine. Euh, yegg si nañu ci xibaaru biti réew yi benn ponk la muy la xew ca Mali euh, ñu ne rek dañoo njoxtu nekk fi nekkoon njiitu réew bu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta euh, bàyyi nañ ko mu delluwaat ci njabootam loolu nag biig bi suuf seddee maanaam ci guddi ci la ñu amal li mel moom mi fi jiite woon réewu Mali Ibrahima Boubacar Keïta ñu ne daal bàyyi nañ ko mu dellu loolu nag lante teg rek moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tegoon loxo téye woon ko fenn di ko wattu muy muy putschiste yi euh, nee ñu nag fi mu ne nii kaaraangeem bi tam amul benn jafe-jafe euh, CEDEAO xam ngeen ne euh, ñoom bi mbir mi amee dañoo jëloon ay daan tegoon ko ci réewum Mali bokk na ci sax itam la ñu bëggoon rek mooy fexe ba daal waxtaanee li ni mel rek ñu daal di koy bàyyi amaana sax ñu teggi yenn ci ay mbir yoo xam ne jëloon nañ ko gàll ko ci ndodd réewum Mali beneen itam xabaar boo xam ne mënees na ko wax rek ne Ibrahima Boubacar Makhtar euh, Keita euh, lu ci mën a am rek moom euh, fi mu ne nii dañu ne dafa bëgg rek daal di dellu wala bokk dem fa nga xamante ne si moom mooy Abu Dhabi daal di fay amal am pajam lu ci mën a am rek moom ñi nga xam ne ñoom ñooy CEDEAO jaarale ko ci ki leen fa teewaloon mu ngi doon sàkku rek ñi nga xam ne ñoom ñooy putschiste yi di waxtaan ak ñoom nga la ñu bàyyi Ibrahima Boubacar Keita laata ndaje miñ fas yéenee amal ëllëg ñaar fukki fan ak juróom-ñett loolee dafa mel mujjee na antu di fàttali rek ni euh, fan yi nu génn euh, ndawi CEDEAO euh, ki ko jiite woon di ki nekkoon ay jamono njiitu réew bu Nigéria di Goodluck Jonathan dalaloon nañ leen wala boog Ibrahima Boubacar gise woon nañu ak moom ci fanu ko tey woon ci teewaay itam colonel yu CNSP ba noppi itam gise nañoo moom daal gise boo xam ne mucc na ay tey itam ne ñu lañ leen xamal rek mooy IBK fi mu ne nii daal féex la àndal ak yaram woyof tollu gannaaw euh, ba mu jugee ci bopp réewum Mali lu ci mën a am rek xibaar yi dina faju ci ca euh, Abu Dhabi ca Émirats arabes uni am déet loolu yëpp euh, ñu ne daal ñi nga xam ne ñoom ñooy CNSP nangul nañ ko ko lu ci mën a am njaw di desu xambin des na leen ko gën a toppalaat ba gën cee am lu ñu leer ñu wax ci tàggat yaram ak itam la xew fële ca États-Unis d'Amérique ni bi ab doomu Amérique di ab africain américain ay atam tollu ci ñaar fukk ak ak juróom-ñeent coow la bari na ndax dañu ko dóor ci ay bali fetal yu ñu tegut fenn euh, joueur yu NBA ñoom nag dañoo euh, gedd rek euh, matchu playoff yi loolu nag euh, rek euh, ñaawlu euh, fitna gi nga xam ne takk der yi dañ koy jël di ko amal ci ñenn ci ay xeet ñoo xam ne duñu ay nit yu weex te nekk ay doomu Amérique loolu nag di mbir moo xamante ne si fi mu ne nii jur na coow ndax doomu Amérique boobu ñu ne juróom-ñaari balu fetal lañu ko dóor ci gannaawam ba fi mu ne nii mu ngi ci guddi gu bët setagul leeral li dañ ciy ànd ak Mamadou Fall. gannaaw kon boycott bu Milwaukee Bucks ci seen match bi nga xam te ñu ngi ko waroon amal seen digganteeg Magic d'Orlando NBA daal nay jël dogal pousse kon match yi nga xamante ni ñu nga am playoff kon ci guddi gi ñu jàppoon ko loolee mu ngi ko xamle ci ab communiqué boo xamante ni euh, nee na kon euh, rencontre yooyee euh, daal nañ koy toxal ba jëmmi jamono mu di nag Milwaukee Bucks Orlando Magic Oklahoma City Houston Rockets Los Angeles Portland Blazers boobee décision nag ñu ngi ko jëlee gannaaw kon boycott bi nga xamante ni ñoo rek ngir ñaxtu ñaawlu li nga xam te ni mooy violence policière yi foofee Jacob Blake nga xam te ni ab afro-américain la bu ñaar fukk ak juróom-ñeent euh, ñu daal di koy kon tiire euh, juróom-ñaari bal te policier def ko ca Wisconsin euh, fait divers yooyu nag tax na rek ñoom kon ñu mer ba futt ca États-Unis rawatina nag basketteurs nga xam te ñu ngi bokk ci NBA ñoom nga xam te ni dañoo engagé wu lool ci mouvement Black Lives Matter baks yi nag ñoom kon ñu ne ñëwuñu sax ci parc bi demuñu tam échauffé wu dem ñu tam te fa ñuy tàngatoo euh, presse américaine bi xam ne nii même yeneen ñeenti match yi nga xam te ni euh, jàppoon nañ ko ci guddi gi mujj nañ ko toxal loola tax nag NBA rek daal di jël euh, devant yi jël ab ndogal ci kon dàq yi les match xamuñu nag kañ nañ ko programme waat yooyu les match ñu jeexale tàggat yaram muy euh, DJ Drogba ak candidature bi nga xam ne dafa amoon yéene rek daal di jiite fédération ivoirienne bu foot ñoom waa fédération boobu euh, nanguluñ ko candidature am boobile moom DJ Drogba euh, ku ne xam na taxawaayam ci wàllum foot daal li mën a jàpp mooy lu jëm nag ci élection yooyu du ci bokk ndax candidature am nang nanguluñ ko ko mënta samp ndëndëm kon mbir mi leer na egsi nañ ci ponk bu mu li ci yéene kaay yeeg Haja màggaluk cheikhul xadim gi yéenekaay bi di laas xëy jàpp ne ku tedd ki ca Touba sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke jibal nëb ndigal lu jëm ci ne màggal gi lépp incha allah dina lalu ci mesure barrières yi maanaam matuwaayu fagaruy kër docteur digle mask ya ak raxasu gi ci la yéenekaay bi ne dinañ ko màggal googee màggal ci les échos porte yoon wi sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir di ci indi leeral ci ne mbir mi moom ki ci yore kàddu gu mujj gi xalifa bu tedd bi la sëriñ Muntaxa Basiru moom kilifa gi di fàttali kàdduy xalifa bi mbas mi teewee mu ne ndawal sunu borom la ca bu mission jeexee mu wàññiku moom ku tedd ki sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir nataalam ñu fekk ko ci Vox Populi mu naan ci màggal gi mooy suñu feet ak indépendance di bis bi ëpp solo ëpp dayoo ci murit màggal gi mooy xew-xew bi gën a ràññiku ci Afrique xalifa bu tedd bi mu ne mu ngi soññi ñëpp nag di ñaax ñëpp ci colum masque yi la tribune ak yooyee dénkaane xalif général kulu murit ci wàccoog matuwaayu fagaru kër docteur gis ne sëriñ Muntaxa Bassirou Mbacke mu ngi ñàkk njaareem di ko ca jàppale docteur Mamadou Dieng ba tey ci la tribune di ci fàttali ne corona baa ngi fi ba tey ci réew mi di defi lorangeem ak i musibaam ak it di law ci Sénégal kon na ci ñëpp jàpp ci wàllu ñaaxe geeg yeete gi ngir moytu gi dinañ nag jëli matuwaay mu ne ci bërëb mbooloo yenn yu ci mel ni jumaa jàgg la ko wër ci résidence ya ca kër sëriñ si naka noonu it ci gaaraas ak marché yi enquête yéene kaay ne leneen lu kilifa bëgg indi saafara mooy tolloo lu toll nag ci téeméer ak juróom fukki bërëb yi paj ak nemmeeku dinañ ko sanc ngir askan wi wàllu politique waxtaan yi ñeel dialogue national bi l'observateur xëye wotey gox-goxaat yi nu dëgmal ak ndëgg sërëx yi ci mën a am su fekkoon ni dañu ko toxal rapport final bu commission bi nag di waxtaanee politique ci dialogue bi yéene kaay bu groupe Futurs Médias njort mu dugalaat géew politique bi ci réeroog wërwërloo ndax bokk na ca poñ yeenu juboo ñu ne audit bi ak xayma anami wote win ci réew mi loolee opposition bi moom la teg ne amul bàyyi ngir mën a bokkati fii ci Sénégal ci yeneen élection ci ñu ne loolee du am lu may dañoo toxal local yi yéene kaay bi njort kon lii lépp xajamal liggéeyub général Niang ak i collaborateur am les échos ñëw ci poñ yenu juboo ak yi gindi ko amagul te yooyee waxtaan politique yéene kaay bi ne bokk na ci la ñu maase ànd di léegi lu ñeel marche yi muy doxi ñaxtu yi su tere yi am kilifa yi ñetti fan laata ndaje mi lañ ko war a def jibal na nit ay xalaat yi digle ci yër yëraat gi war ci article 80 arrêt Ousmane Ngom ak lu ci mel ni li ñàkk loo yenn kilifa seeni droit politique ak civil fa juboo amagul nag mooy ci anam wutug maire bu faatu ak it ci mbootaay gi war a organiser élection Sénégal yéene bi ne tey nag li ñuy waxtaane mooy cumul gi maanaam booleeg ndomba tànk bu président ak président parti wotey gox-goxaan yooyee le quotidien moom la mu ca njort mooy bi yoon liste yi bari lool ci ñi taxaw sampi ndënd di laaj seen gox wàllu parrainage gi nga xamante ni juboo nanu ci dindi ko ci local yi waaye yaanaa maar ci yéene kaay bi ñoom seen gis-gis mooy loi bi ci boppam ñeel parrainage jógee fii magistrature bu gi ci fan yi naka noonu xuloog rubinek mbedd ñenn ci jàngat li waral cooxe gi yéene kaay bi ne su weesoo ñàkk yamale gi ci wàllu altraite gi ca baron yi gën cee profito nguur gi dugal loxoom ci seenub liggéey ak ñenn ci kàngami magistrat yu ko ko nangul moo waral fi puuk jeune magistrat yi forum civil moom ci coow li ne président de la ci boppam moo ci war a jëli responsabilité am di kàddu yi njiital forum civil Birahim Seck yëkkati ci la tribune juge ba woon Ibrahima Amadou Dem ba tey ak la tribune moom la mu gis mooy réew mi fileeg justice bi moomul boppam ñun ñëpp ñu ngi ci danger yéenekaay bi njort ne fu mu gën a jege jamono yi muy équipe bi di Manchester City Kalidou Koulibaly moom doomu Sénégal bi record ne jàppal nañu ko réservé avion privé ci juróomi fan ci weeru septembre lañu koy xaar ca Manchester City wàllu lamb sunu lamb ñëw ci combat bi di Modou Lô Ama Baldé ak promoteur ba ko war a tëgg di Luc Nicolaï yéenekaay bi ne weer ginnaaw ak génnam ci kaso bi patt la ca def yooyu ci yàbbiwu ci ci combat boobee Jules Baldé moom ne xamul sax fu mi bu njëkk bu observateur waxtaan wu yaatu dox diggam ak yéenekaay bi ci na muy dundee léegi ay projet yu bees sos na yenn ci supporter nag ñu ngi sàkku ci moom fan yi mu dellusiwaat ci arène bi Hadj Assane Gueye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias amoon mbégte jàkkaarloo ak yéen dégtal leen xibaar yi li ci gën a fës ci alxames ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août waxtu wi su jotee xam ngeen ne dañuy dem xooli li xew ci biir internet bi ànd ci ak Mamadou Ndiaye ak jigéenam Mary Bey Mamadou ñu lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Fati di nuyu téléspectateurs yi di la jaajëfal ci xibaar yi aussi. kanam léegi léegi ngeen ànd ak euh, Mamadou moo Futurs Médias Mairie Bey la ci fas yéene àndal di la ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci safoo bi ak kóolute bi